TV, la chaîne wax dëgg nañ sax ay déclaration am na solo am na solo bu baax a baax ñu koy wax na ko yàlla dem njabootam ak jàmm suñu xarit boobu di Kouthia partagé leen laa la wax ni tey jii di ngeen digg yu baree baree baree baree baree baree dama bëgg ñu rek tekk laay def au total ñu né fièvre bi 3161 déclarés positifs 1565 guéris 36 décédés 1559 sous traitement mais tay njumté amna ci parce que dañu dajalé do bo len démé ci Dakar ma té di ngeen gis vidéo Abdoulaye Ndoye limu wax Partagez dako sax ci euh, groupe euh, WhatsApp bek Telegram bi ngeen gis ñu dajalé tous les enseignants ci benn bërepp Sénégal état bi mi ngi bañ rassemblement mais procédure bi ñu teg baaxul defe naa rectifier nañ ko léegi génne beneen communiqué bu bees boo xam ne ñu ngi koy changer ba léegi euh, euh, Abdoulaye ndoy bu kisem sa am na lu mu wax donc euh, loolu am na solo am na yoo xam ne foog ñu leeral ko balaa ñuy ñëw ci loolu moo di dégg ngeen coowul décret bi Euh, coowul décret bi ba léegi dama ci ay reetaan moom la gën la gën a def que waruñu ko sax ree parce que c'est une affaire très sérieuse xam a yàgg naa leen wax li ma leen di wax lépp bàyyi leen ci xel fen du bay wax naa ko fii muy benn koo jàppee dof mi ngi wut garab yum la faje te nag mu métti lool ci ñun parce que ñoom saa bu ñu tegee dara ñu fexe ba génn preuve yi weer leen ni géej ñu weeru te du te ñuy continuer di def rek du tee ñuy continuer di def am na ku ne nañ partager partage du tee ñuy continuer di def xam nga tey jii su ma leen joxee chronologie décret bi rek yéen seen bopp sax war ngeen nga xam ne vraiment ñii defe naa xam nga dans le mensonge même sax ils sont pas pertinents parce que looy def rek na nga ci aay euh, dañoo ñëw ne benn guddi rek gis benn décret numéro 2020-964 sur les réseaux sociaux yëpp yëpp jot gis décret bi ko signé le 17 avril 2020 président de la république bi nga xam ne sénégalais yaa ngi jooy mbas mi mu métti lool ba tey jii am na ñuy joytu jotuñu ñu war a jot. on leen tey ngeen di dégg loo leen mosul dégg fii tey jii dinaa leen pikir tey yoo xam ne da ngeen wax ne noonu lii mosu koo wax ñoom ñu signé li nga xam ne moo di décret bi le 17 avril 2020 sénégalais yi nekk ci coono gu metti ndax coronavirus bi ndekete ñoom ñi ngi xool nu ñuy gën a paacoo xaalis président laqatu signé décret honoraria honoraria tudu sax dafa naqari nga xamne ni dafa naqari wax honoraria ne képp ku doonoon ancien président conseil économique social environnemental dina def président honoraire weer wu nek nga am 4,5 millions de francs CFA am 500 litres d'essence ñu ne fa lay mu ne déedéet xeet naa ko ñu ne ko président mu ne ma lay jox chauffeur ñu ne ko président xanaa yemal foofu mu ne dama garde corps boo xam ne koy surveiller <laughs> président boo fi gis conseil euh, caisse noire boo chaque fin de mois ñu def lu millions kon neexee mu jël ko léegi viré ko ci compte kenn du ko topp ci lenn sénégalais nekk ci loolu mu nekk un scandale au cœur de la république beneen livre mën na génnaat ci boobu un scandale au cœur de la république scandale yi moom dinaa ci dellu si waat mu signé décret bi le 17 avril 2020 guddi gi Sénégal mel ni tulleeg màlle coow li ne kur ñëpp di wax ñepp di wax ne ñi xana dañ ñoo yap ñi xana li bu nekkun dëkk boo xam ne dafa normal la suba sa suba sa sénégalais yi wàcc ci mbedd mi defante ak ñoom ba coow am wala ñu génn retiré décret ya xam nga sénégal moom léegi moo tax dama lay wax ne dañuy dem ba bëgg a décourager est ce que jar na ko jar na mais war a bu la yàlla tegee natt bi teg na la natt bi rek scandale bu am cellule de communication bu président de la république genn communiqué bo xamné mim né décret 964 amul kuko wax da ngay wax lu la ci communiqué bi amul signature am cachet mim ko la la wax dé ne amul décret 964 waxna la xam nga bo ko jappé dof mi ngi wut garab bi len leen faje ñu ne len daf len dank 964 amul waye luñu jaaxal ñu génné décret 965 tégal len bàcc ci kaw table bi na len waw décret 965 da amna mi ngi ci journal officiel bi moy décret bu samp comité de suivi bu force Covid 19 décret 966 amna moy décret bu fal général François Ndiaye mu jité comité boobu. kon bu 965 amee 966 am fa 964 am na yéen kay li lay war a sóoli génneel leen 964 parce que cent 965 am na communi communiqué bi day na amul ñu toog tuuti ñu kepp leen foofu rek téye journal Le Témoin suñu mag Mamadou Omar Ndiaye Pape. nga avons ne ñooñu xam nga ku xam ay mbir lañu lépp ñu décret numéro 2020 976 bu Aminata présidente honoraire du conseil économique social environnemental yéen a ngi may dégg bu baax de ñoom ñu décret 964 waaye moy génne décret bi nga xamné ne 976 fal Aminata Tall présidente honoraire du conseil économique social environnemental kon ñu japp le numéro fal ak folli président honoraire honoraire Amna te laata muy am il faut que mu am décret pourtant ko euh, cellule de communication président dafa nañu amul kon fen wu a ngi mensonge d'état mensonge d'État mi parce que nañu décret 964 amul bu décret 964 amul décret 976 Moutam. décret 976 bi def Aminata présidente honoraire dafa viser décret 964 parce que dañ ci vu le décret 2020 964 du 17 avril biñ avons vu le décret 2020 964 du 17 avril instituant l'honoraria roria. par conséquent amina tatal nomé nañ président honoraire <laughs> <laughs>

964 instituant l'honorariat weeru ngeen kon communiqué bu présidence boobu c'était un faux bu mensonge di am communiqué boobu moo nekk un faux légui nag comme japp nañ len ne décret 964 amna xam luñ def légui nak dañ len décret 964 donté amna légui nangu nañ ne amna parce que ni ngui koy génne légui donte amna listé wul ay avantages yi wax moy quatre millions cinq cent litres d'essence yeeg chauffeur euh, ak auto ak euh, euh, ak ndax na chauffeur moom balaa nga joxe da nga joxe auto logique rek la leen wax légui ñu né nangu nañ décret neuf cent am wante dañ né liñ ci wax lepp ne lolu amul mais xamal ñu faté dañoo fàtte ne boobu dañoo fàtte ne décret boobu lay war a soli dañoo nekk ci lu am solo ñu bàyyi di woote euh, te ñi nekk ci live bi décret 964 boobu ñu ne léegi dangu nañ ne am na waaye dañ ne décret 964 boobu le amul li nga xam ne moo di <laughs> li liñ liste loolu waaye xaar nit boo koy fay président honoraire dina am lu mu ànd ak pour honoraire rek pour lan pour mu am drapeau vert jaune rouge xam nga loolu wax ko koo xam ne ku wayee di nga koy wax feeñ nañ ba cig na rek kam léegi na li gën a yomb kay mooy génn leen xam lu ñu jaxal ba tey ji ci journal officiel un décret 964 bi te ñoom d' accord nañ parce que dañ ne vu le décret 964 instituant l'honorariat kon am na mais lu tax duñ ko génne moo ne de décret bii def Aminata Tall présidente honoraire bu conseil économique un génn na ci journal officiel numéro 7307 du 29 avril. moo tax ma ne tey naa leen ko pikiir moom saf-saf. décret boobu bi fal présidente honoraire moom génne nañ ko journal officiel xanaa logique pour logique kay décret 976 décret 964 moo ko war a journal officiel logique pour logique bu toppantee rek décret 964 moo ko war loolu rek moo tax ñu war a glisser ndànk ñun xam nga dem fan loolu rek le fait que ñu nëbb décret 964 bañ ko génne journal officiel rek war na tey suñu xel in foog ne Aminata Tall soxla nu koy fal présidente honoraire bu àndul ak dara ku ko soxla kenn soxlawu ko loolu rek war na tax ñu gëm na ñoom seen kàddu rido la rido ga kenn du ci wéeru rido la rido mayga kenn bu ci wéeru te tey dinaa leen ko génneel ngeen déglu benn par benn di ngeen taf seen gémmiñ ne noo musu ko wax non pabaale lii nii waxi gouvernement rido la abonné leen ci seen YouTube bi mais défi yi ngeen lancé seen bopp nag yéen réussir leen ko man moom li ma war maa ngi koy def maa ngi dem di leen indil information di leen ko tegal mais yéen leen défi défi bi dina bi ba trois cent mille abonnés leen seen def man bi ma am mooy dem lijjanti décortiquer wan leen na leen ñii seen ñuut yaa ci seen péw dara doxu ci kon sama gars yi xam nu ñuy def ma xam nga dañ dañ wax ne des fois woo nañ kilifa diine yu bëree bëri ñu wax na leen maam abdou si da baax bu doon wax dañ toog mam alpha si maa ngi ci waxtaan ak moom barki démboo njaay euh, ci zawiya ba la doon toog jël micro kenn du changé ay kàddu mu wax leer nañ ñu am ay waay waay bëgg nañ loolu bëgg nañ kuy toog di wax wax bi de xam nga mooy lan du waxu compte du waxu lan xam lan la boo xam ne dangay waxal askan bi dégg nañ fi ba boo xam ne neex na dégg nañ ko ngeen ko kon ñu seetaan suñu imam boobu mooy sëriñ Fàllu Mbàkke jumaada wax yu am solo lay wax kon gaa yi ñu déglu ko nag doo ko tarxis nag seen wax yi nga xam ne waxi rido la kenn du ci wéeru ñu déglu ko Dakar Matin gouvernement bi coronavirus bii de war ngeen ci am lu ngeen ci jànge li ngeen ci jànge mooy xam ngeen ni nit ñi gëmuñ leen wóoluwuñ leen jàngoro joo xam ne yaa ngi koy gis man caa teg sa loxo di wax ni nit ki ba jàngare ji mu lànk ne du jàngoro ji xam nga ne yow la gëmut yow na gëmut li tax nag bu ngeen leen waxee du ko duñ ko gëm nag loolu moo a seetaat da ngeen leen tam ma waxte li ngeen di wax doonu dëgg moo tax bi ngeen leen di waxee rek jàngoro jaa ak ni ñu ne du dëgg la waa ji waxoon rek laay wax bañ duggee ci oto oto bi accidenté ñu ñu bari faatu ñuy génn néew yi di teg di génn ba yàgg ñu génne benn waaye mu ne faatu wu ma de waaye nag yii faatu na de ab politicien la day wax rek faatu na mu ne faatu wu ma ñu ne ko faatu na de ab politicien day politique rek yóbbu leen ci ñu ci ñu faatu suul ko loolu moo dal politicien yii maanaam nit ñi dañ leen a mënut a wóolu nit ñi mënu leen a gëm loolu moo tax nag loolu mat naa xoolaat nii kenn du ko yore ab population di leen wax lu dëgg ba ba boo leen waxee dëgg ñu wetti ko loolu dara jaru te loolu moo am nag ndax fi ne coow laa ngi ne cobbay te nit ñi mënuñoo fexe ba gëm wax ji te de tubaab gii de ba leen ko suñ mun taxaa waxee génn xaalisam def ci ñëpp ko daal di gëm ci saas waaye bu leen ko gouvernement bi doon wax ba déwén duñ ko faale loolu nag bu dalee ab gouvernement war naa xoolaat boppam xam ne moom mii yoon yu mu jaar du yoon wi te noonu kenn du yare yaree ab population bi ci couvre-feu bii nga xam ne moom lañ def gendarme yi ak ak policiers yi nga xam ne lañ ko dénk xeeti reewande yi ñu ci ak itam nag xeetu xaw ma kañaan lañ koy tuddee xaw ma mbañeel lañ koy tuddee xaw ma topp ci nit ñi dóor a gaañ leen neex def tey mbir mi du du xeex bataille sanitaire la da ngaa war a laaj nit ki wan ko yoon dimbale ko jàppale ko waaye nit ki nga doon aar nga far wàññeeku di ko gaañ ba lu raw lu raw aare loolu laa gis man. ñi nga xam ne ñoom ngeen leen yóbbu ci terrain bi yar leen leen te jàngal leen te wax leen réew mi fi mu toll am réew ku ca nekk da ngay xam réalité réew ma waaye fekk imaam ci ci jàkkaam nga di ko jàpp di ko dóor ba di ko gaañ loolu ab julit du ko def waxuma la julit mais nit ku nit sax du ko def yaa ngi romb nit ki ci buntu këram ne ko duggal ci biir kër gi rek bu fekkee jàmm nga bëgg waaye jàpp dóor dugg ci biir kër jàpp ay nit dem dóor gaañ loolu da jaru ko waxuma la sax ñu di ci boole ay wax di wax léeg-léeg ba ji ba ba dépassé nit ñi ba yàgg seeni kilifa yooyu gouvernement na ci bàyyi xel yu tuuti la yoo xam ne ñu koy xeeb te day gën di màgg rek te gis nga nit ki su fekkee ne da nga koo da koo yare noonu mu ne cell bis bu fi fippoo rek musiba am force de su ko yore ab population population da ngay wax ak ñoom yërëm leen dimbal leen te xam ne bañ lay fal looloo taxoon kon nañ xoolaat ci wàllu woowu bi ci des mooy da ngaa waxoon de daaw di atum social la waaye ren jii nag moo war a doon otom social ndax ceeb bi ñuy séddale dangay gis ku dikk ne la nañ seet ñi ko yayoo man de xawma beneen koñ waaye koñ bii ma dëkk rek ñëpp a ko yayoo ma dëkk soo bëggoo nat naan kan kan moo fi yeba yayoo ndimbal li doo bàyyi kenn ñëpp ngay bind kon suñ bëggee dimbali nit ñi bu amut ko ko yayoo ñëpp ko yayoo nañ leen jox dimbal suñ leen mënta jox ndimbal mënta daj xaalis bi jël muy junni milliards yooyu ñu teg ko ci prix bi wàcce ko ba saaxob ceeb jeer du junni kon yëpp dañ ci mën a jot su fekkoon dañoo bëgg a dimbali nit ñi dañuy wàññi ceeb bi wàññi suukar si wàññi diwlin bi benn bu nekk ñu wàññi ko ba ba ki doole mën caa joti su boobaa danañ ci jot kon nañ dimbali nit ñi nit ñi sonn nañ de boo demee ci àll bii de dafa nekk kenn mënu la ko wax kon ren ji atam social la bi ci toppaat nag mooy ah nawet ngi ñëw nit ko xam ne kii amoo loo nooroo xam nga ne doo am loo nawetoo kon gouvernement bi na bàyyi xel ne réew mu réew mu sonn mu kiif mu feebar moo fi nekk ma bëgg mu jàppale leen jàppale gi nag bu ko jaarale ci politiciens yi la ma la waxoon na ko jaare ci nit ñu wóor ñoo xam ne yi jàppale dañ jot ndax li ci li ñu séddale kat dégg lañ ci am ndax boobee ba léegi kenn taawu gu taaw fii ne ma la ñuy séddale gouvernement bi jot naa ci kon nañ dimbali nit ñi jàppale leen baykat yi nañ leen dimbali amuñ jiw amuñu dund amuñu matériel bu ñu bayee la muy jur nag mooy suñ soo ngeen leen bayee noonu ñoom ñëpp dañuy bàyyi foofu yi àll ba ñëw fekk si leen foofu ci tax yi bu xanteeg yéen ci li ngeen loolu yi ngeen yor ñu jéem caa am seen gëm kattan te it na dimbali nit ñi wutal leen ab diir boo xam ne bi daañ mën ñibbi seen kër yi ndax na nga xam ne kat fii de am na fi borom kër yi yalwaan yoo xam ne bii seen ala la nga do ñoo mënta dem am na ñoo xam ne ña nga ndakaaru bëgg ñi bay ñoo dem gouvernement bi na jël na na na na na na def xelam ci xam ne nit ñi dañoo sonn amaan ji des nag diggante ministère yaag député yaag attekat yaag ñaaj ñoom ñoom ñëpp ñoom ñëpp xam nañ ne nekkuluñ fi kenn seen bopp lañ fi nekkal nit ñaa ngi xiif ba sonn amuñ amuñu dara amuñ fuñ jëm amuñ ku leen jàppale damaa woon ne kay kenn ku nekk day wax ne man de sama salaire ñaari weer joxe naa ko ginnaaw nit ñi nee ko toogal ci sa sa lekk yow nga ne ko toogal ba nag bu weer dee nga fay sa sol def sa poos xam nga ne yaa ko tey nu fa toog bu fa toogee lee mu jóge fa su fekkoon ne daal bëgg nañoo dimbale doomu aadama yi dañuy maye seen sal seen salaire ñaari weer ñu dajale ko jox ko doomu aadama yi dimbali ko ah ah assemblée bi nag moom ku leen tudd sax daanaka moom jurul wax moom assemblée moom ñooñu duñ dara boobaag léegi ndax dégg ngeen leen fen te nee ñu yéen lañu fa nekkal ndax dégg ngeen kenn ci ñoom tàmbale ca Moussa Niass ba ca suuf seen caisse noire boobu tey ñu tibb ci génne ko dimbale ko doomu aadama yi lu may ñu toog di seetaan déggoo ci kenn kon boo liggéey gi si biir bala ngeen a farati député na ngeen xool kii kan la naa. Dakar. 确定。